salaamaaleykum mbokki déglukat yi sunu mbégte rëy na ci li nu xam ne yéen a ngi ñuy déglu ak takkute nu ngi dellu di bég ci li nu leen mën a dégtal seen émission yoonu njub bi ngeen sopp a déglu mbokk yi wolof njaay nee na rëy day sewloo nit waaw nit ku rëy dafay yëg boppam foog ne moo gën a baax moo gën a mën moo gën a xam du teg ñeneen ñi ñuy nit du faale kenn moo ne dañuy wax ne boo yëkkatee ab loxo ne yëguma kenn yëkkatil beneen bi ne kenn yëguma lii kon moo nuy dugal ci sunu njàngum tey mi jëm ci mbirum rëy muy mbir mu gaaw a solu nit ba tax nu war cee bàyyi xel fu nu toll te sax dog ci waar koo mën a doon ndegam nit nga rekk mbir mi mën na laa dab mbind mi dafay nettali ne dafa am bés werante am ca biir taalibe yéesu ya ñuy laajante kan moo gën a màgg ci ñoom yeesu mi xam seen xalaat jël ab xale teg ci wetam ne ki gën a woyof ci yéen ñépp ba mel ni xale kooku moo gën a màgg kon ana yan mbir ñoo mën a sabab rëy ci nit juddu bu rëy mën na sabab ak rëy ci nit waaye ay laaj a ngi nii yu kenn ku nekk ci nun war a tontu maanaam yaa di kan ci lan nga sosoo ci kan nga soqi ko ci lu wér bu nu goree te jub li nu war a tontu ci laaj yooyu mooy man nit la ci pënd laa sosoo te ci maam aadama laa soqi ko waaw su fekkee ne nun ñépp ci maam aadama mi yàlla sàkke ci pënd la soqi ko ana lan moo waral nu war a rëy rëylu li ko waral mooy seytaane koy def ci sunu xol moom mi nga xam ne rëy rëyloo taxoon mu bëggoon a teg boppam yàlla ba tax yàlla ko jële ko ci malaakam leer ma mu nekkoon aji sax ji dul jox ndamam kenn daaneel ko mu nekk iblis te tabaxal ko kër muy safara kër goo xam ne falay dëkk abadan moom ak ñépp ñi koy déggal kon mbokk mi nu déglu xamal ne man ak yow dunu dara lu dul pënd ana kon lu fi jara yëkkatiku ci loolu kàddug yàlla nee na pënd nga te dinga dellu nekk pënd naka alalu àddina itam ni ngeen ko xame mën na sabab rëy ci nit yeesu nee na dafa amoon waaju bare alal te ay toolam nangu lool muy werante ci xelam naan nu ma war a def nag ndaxte amatuma fu ma dajale sama ngóob mi noonu mu ne nii laay def damay daaneel sama sàq yi defaraat yu gën a rëy ba mën cee dajale sama dugub ji ak sama am-am jépp te dinaa kañ sama bopp ne yow mii am nga alal ju bare ju mën a dem ay ati at noppalal sa yaram di lekk di naan tey waaye yàlla ne ko ñàkk xel guddik tey dees na jëlaat sa bakkan kon li nga dajale lépp ku koy moom nettali bii dafay wone rekk ne alal nekkul li ëpp solo ci dundu nit ki xoolal boroom tool bi bi mbayam anto dugub ji ne gaañ amul dara lu mu ci xalaata def lu dul fas yéene yàq sàq yi def dugubu daaw ji moona mënoon na xool fa ko wër kon du ñàkk mu gis fa ku aaja aajawoo peppum daawam ja moo gënoon mu koy xalaata lakk mbaa di ko suul waaye boppam rekk la doon xalaat sama sàq sama dugub sama am-am sama sama rekk xamul ne li mu am sax moomu ko yàlla dafa ko ko dénk rekk waaye moom bu weesoo boppam keneen amatul woon solo te nag waa ji bu xalaatam joyul woon li mu naroon mooy bu yàqee sàq ya lakk dugub bu daaw ja ba noppi dafay defaraat sàq yu gën a yaatu noonu mu fat ca dugubu renam bu noppee mu tàmbali jëfandikoo jot gi ko yàlla jox mu yaakaar ne moo ko moom te naru ci woon a def dara lu dul tëdd lekk naan tey bànneexu rekk waaye yàlla joyal pexeem faat bakkanam ci guddi googu sax noonu yàlla laaj ko li nga dajale lépp ku koy moom nun it war nanu bàyyi xel ci laaj boobu ak koo mën a doon loolu moo tax pool ndaw yéesu kirist waxoon timote mi nekkoon njiit ci menn mbooloom ñu gëm yéesu ne ko ñi barele alalu àddina nag dénk leen ñu bañ a rëy te bañ a wékk seen yaakaar ci koom-koom yi saxul fenn waaye ñu wekk ko ci yàlla mi nuy may naataange ju mat ngir nu mën ciy bànneexu yàlla bëggul kenn wekk yaakaaram ci alal ak koom-koom yi saxul fenn ba tax ngay bàkku ak a teg sa bopp foo àggul àgg fenn fi sax warul la tax nga yëkkatiku li yàlla bëgg mooy nga denc sa alal ca sàq ya ca asamaan bu ko defee mu nekk sa kaalak ndam ëllëg kon xarit dëgg la juddu bu rëy ak alal dinañu sabab rëy waaye itam xam-xam ak daraja mën nañu sabab rëy ci nit loola tax kàddug yàlla ne xam-xam day tax nit yëg boppam waaye mbëggeel day yëkkati ngëm ku xalaat ne xam nga dara sa xam-xam des na te bënnagul yéesu nettali woon na benn léebu bu jëm ci nit ñiy rëy-rëylu di xeeb ñi ci des ndax seen daraja mu ne dafa amoon ñaari nit ñu dem ca kër yàlla ga di ñaan kenn ki ab farisiyen la ki ci des juutikat farisiyen baa ngi taxaw di ñaan ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ni ñeneen ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bii ayu bés yu nekk damay woor ñaari yoon di joxe asaka ci lépp lu ma wut waaye juutikat ba moom ma nga taxaw fu sore te a siggi sax xool asamaan ma ngay fëgg dënam naan yow yàlla yërëm ma man mii bàkkaarkat yéesu teg ca ne maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom la yàlla àtte ni ku jub waaye du farisiyen ba ndaxte képp ku yëkkatiku dees na la suufeel te kuy suufeelu ñu yëkkati la loolu la yeesu waxoon ci nitu diine kooku ak ñi mel ni moom dañuy rëy di def seeni jëf ngir nit ñi gis leen di leen tagg ak a naw noonu bu ñu demee ci xew yi itam toogu yu yiw yi lañuy taamu te it bëgg di féete ca kanamu jàngu ya ñuy wut kilifteef te bëgg ñépp di leen nuyoog ñaari loxo waaye ñoom ak ñi mel ni ñoom nañu xam ne ku yëkkatiku dees na la suufeel ci loolu nag bëgg wax ne wareesul jox wegeel ñi ko yelloo doom dafa war a woowe pàppa baayam te ki feebar it mën na woowe fajkat bi doktoor yàlla sax dafa wax ci lu jëm ci sunu jokkalante ak nit ñi ne jox leen kenn ku nekk cër ba mu yelloo waaye am daraja xam-xam walla lu mu mën a doon warula tax kenn di teg boppam fu ko yàlla tegul ndaxte mbind mi nee na ku la def ba nga gën a màgg ñi ci des loo am lu ñu la mayul te bu ñu la ko mayee lu tax nga di ci tiitaru mel ni mayuñu la ko kon góor gi jigéen ji yow miy déglu tey suufeelu moo la war moonu war nun ñépp su dul loolu bés yàlla dina la suufeel te loolu moom lu jara moytu la fàttalikul li yàlla wax ne nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddug borom bi day sax ba faw xanaa yaa ngi naan waaw waaye ndax rëy am na saafara waaw waaw yàlla am na saafaraam ndaxte dara tëwul yàlla saafaras rëy mooy woyaf kàddug yàlla dafa wax ne yéen ñépp solo leen woyaf ci seen biir ndaxte yàlla day yiwal ñi woyaf suufeel leen seen bopp fa kanam borom bi kon dina leen yëkkati loolu mooy saafara si yéesu joxe ngir doom aadama bu ci sax rëcc ci rëy yeesu moom du wax di wàcc lépp lu mu mës jàngale moo ca daan jiitu ci mbirum woyof ak suufeelu itam joxe woon na ci misaal muy royukaay buy dimbale képp ku bëgg a aw ci tànkam bëgg solo woyof te rëcc ci rëy mbind mi nee na yéesu ak taalibe yaa nga doon reer bés mu daldi jóge ca reer ba summi mbubbam daldi jël ab sarbet laxas ko ci ndiggam noonu mu sotti ndox ci këll daldi tàmbale raxas tànki taalibe ya di leen fomp ak sarbet ba mu laxasaayoo woon bi mu leen raxasalee seeni tànk ba noppi yéesu solaat mbubbam dellu toogaat ne leen ndax xam ngeen li ma leen defal yéen a ngi may woowe kilifa gi ak borom bi te wax ngeen dëgg moom laa kon bu fekkee ne man mii borom bi te di kilifa gi maa leen raxasaleen nii seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bàyyil naa leen fi royukaay ngir ngeen di def nii ma jëfeek yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula màgg sangam mbaa ndaw ki ko yónni gannaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu dingeen bég noonu yéesu Kirist boroom ndam li bàyyi na fi royukaay di pexe mu ñu mën a aw ba rëcc ci rëy waaye nag jëfe noo nii yéesu jëfe woon keroog yombul mën ngaa jéem waaye doo ci sore dangay sonn rekk xaddi kon mbir mi dafa am lu ko war a jiitu li koy lalu moo di faw nga jëkk a judduwaat su fekkee ne xamuloo lan mooy judduwaat jarul nga ci am kersa mbaa nga koy rusa laajte loolu daloon na benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy woowe Nikodem kàddug yàllaa ngi nu koy nettali naan amoon na ca farisiyen ya nit ku ñu naan Nikodem te mu bokk ca kilifa yawut ya genn guddi mu ñëw ca yéesu ne ko kilifa gi xam nanu ne yàlla la yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wone te yàlla àndul ak moom yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguurug yàlla ni ko dem ne ko nit ku xas ba màggat nan la mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguurug yàlla lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ngelaw fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jóge xamuloo fu mu jëm noonu la mel it ci képp ku juddoo ci xelum yàlla ci baat yooyu ni ko dem ne ko nu loolu mën a ame yéesu tontu ko ne yow yaay jàngal bànni Israyil te xamuloo mbir yi ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax na Muusaa sampe woon ab bant ca màndiŋ ma takk ca jaan ja mu defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu dul jeex kon yow miy déglu aaye yi nuy soog a jàng may nañu la nga dégg léegi ne ngir mën a rëcc ci fiirug seytaane gii di rëy faw nga woyof wante ngir mën a dunde woyof danga war a jëkk a judduwaat faw nga gëm almasi bi yeesu moom mi ñu wékkoon ca bant ba ngir képp ku wékk sa yaakaar ci moom mucc ci mbugalu safara ba bànni Israyel tooñee yàlla ca màndig ma yàlla aji sax ji dafa waxoon Muusaa mu tëgglu jaanu xànjar wékk ko ci bant noonu képp ku jaan màttaan nga réccu te xool ca jaan ja ñu wékk daldi wér noone Muusaa wekke woon jaanu xànjar ja ci bant ngir ku jaan matt bu ko xoolee mucc noonu itam képp ku xool maanaam képp ku gëm yéesu mi tuur deretam ca bant ba ñu ko wekkoon dinga am ci moom dund gu dul jeex bu loolu amee xel mu sell mi dina la taxaw bés bu set ngir may la kàttan ba nga mën a woyof te rëcc ci rëy ak bépp bàkkaar kon nag mbokki déglukat yi fii lanu yem ak yéen tey ba beneen yoon jërëjëf ci déglu bi su ngeen amee laaj ci lu nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax ne yàlla day dàq ñi rëy di yiwal ñu woyof